a soos <laughs> sama yaay mi ngi fax maa mi euh, sama yaay namm naa ko trop trop trop trop non a ngi ci moom sama yaay de ngeen ay dérangement di ruube kër ga ruube ku wax mu dëbb nga xam nga sama yaay du <laughs> changé mais léegi ah puisque mi jëm mag sama yaay bi ñu sama yaay dëgg non kenn du ko kenn du ko kenn du ko jege. ndox du bàyyi yoonam. ah mais léegi mag la nag quoi léegi moom léegi moom mag la moom xam naa ne namm naa ko trop vraiment namm naa ko trop. nga raw de léegi moom danga ñooy xawaraar. non xam naa incha allahu rabi fan yii rek maa ngi naan dinaa jàpp jour dem fa seeti ko. incha allah ndax dafa nekk sama xel fan yii trop trop trop sax. mais man xam naa damay ñëw daw léegi parce que bi may jógee village sama yaay daf ne woon bu ma jaar fenn. dama nak sa way xarit yu ñew indi ay suñuy teraanga xam nga rek affaire yi jigeen ah, ah, ya ko gëna xam. do xar ma dem ba mu ñew nga gisee ak do doo ma bàyyi ma dem nga ne ma xaar ma dem. non non non non non kon xaaral ma woko telephone téléphone bu fekkee soriwul nga dem fekke na ma rek laay tàggu pour dem. non non mais borom kër gi faaw ma ko am nga Ça va bien, la Ça va bien, Alhamdulillah. Ça va, maa ngi nii rek bàyyi a ngi saaj. ah kon baax na. xarit moo nekkoon ci kër gi bon na ne dem na ko naa waroo. yii xadi moom munugul dem léegi ak ni ma ko namee na ma xaar de waaw na ma xaar parce que tamit dafa am enveloppe sax bu ma jox mère donc na xaar ma ñëw maa ngi di ñëw maa ngi nii presque yegg si naa daal. d'accord d'accord. ok d'accord maa la ko mu bébé. Ok, bise moi aussi, je t'aime. non lii damay àbb ka damay xaro dana accident bi ci yeen da ngay a gëj a ay mois wala des jours wala des semaines li lan la. fa da nga di xalé rek gis nga jabar ju bax bu la ko yalla dénkee bu génné kër gi da ngay am problème parce que da nga koy namal. ñoom bëgg li la gëj a gis yu indo yii. Ah, man nag boo bëggee dégg-dégg. foo ngi toj. sa mak mom casé wu la chérie ko la mon na la de man de luma la nam la man do boko nek jank lu meuna bind meun nga ciep lu ko raw mo yo nga wara doli yayam barkeurité mais sa sa sañse nak dafa bax fum nek ni comme dakar yi ndi ngeen jël ni ya ko ah a tam bu ñu yoru yoru suñ bop bëgg na ko dina ma neex torop xalé tous ne am na ko ci sama yaay jur <laughs> sama ya. kat sama sama sama kat avant weeru koor gi di ñëw woo naa ko fii téléphone mu ne ko sama sañoon da nga ñëw woote ci kër gi mu na ma non bàyyil ma toog fii parce que moo woote foofu dafa wéet yéen ñaar yëpp boo leen liggéeyee kenn du fa wéttali sama yaay bi dérangé wu ko de nak nag kontaan na trop seet si bi waaye dafa am lu mu bëggoon nga joxal ma ko sa yaay wax fa dëgg yàlla dama ko préparé loolu sa yaay parce que sa yaay baax na bëgg na ma daf ma uuf uh, comme doomam bu mu jur xoolul ni rek ni jabaru doomam laa waaye daf ma jël Uf, ma melni dal daal moom moo jur donc man awma fayam damay ñaan dal yalla fayal mako yalla yàlla ko fi ba sa tëb ñew di tara inshallah allah wala nee ko ma ko fi may gis nga lii yow mënoo bay yow transfert gis nga wu ma te ma yow jéeg bu gën nga bu riis alal ci xol la sax ku ko yëkkati da la ko jox da la bëgg bu doon dangaa bon ci ñun jéem ñoo sàkk euh, pexe ak kii ñun dañ ciy taxaw rawatina man ndax benn mag bu góor la ma yàlla jox mais dangaa bëgg sama yaay yëg ko mais lii nag moom mënuma koo yóbbu ndax keroog ba ñuy dajale suñuy teraanga pour indil ko ñun ñii amul luñ ci dajul te ba ñëwee dañu koo xeebal yow nag nga mën a yëkkate xaalis bu weex tàll di ma ko jox duma topp ndax taluma ay kudd ci waa di ma gàttandu sama yaay nee na bu ma dërëm topp mi ngi noonu gis nga bu taasu daganoon ci weeru koor gi laay weeru koor gi ma ah, ko su ma ko mënoon maa koy defal parce jox demal rek ma këlëb ku soom na yàq jéeg bu baas bi dafa yegg si këram ku soob nag. dama bëgg woy bu am ambiance am bruit parce que nag damaa bëgg a bëggal sama sama sama sama jabar. say dëkkandoo yi say nawle lañ. ah ci weeru koor lañ nekk mais ndogu nañ ba pare. ñeme nga fit na de. loolu du dara bëggal sa jabar moom dara nekku ci. woyal woy bi ma fecc fecc. awo Yai sunyu awo yai sunyu yai awo yai. Awo yai awo yai awo yai. Yai sama awo yai sama yai awo yai. Ameni ko bogu. Mani ni. Ameni ko bogu. Mani ni. Mani mani mani.